Père Max mu ngi jubilé Wagan Père Max mu ngi jubilé Wagan dëgg la jërëjëf amiin Ibrahima Père Max kontaan na ñëpp kontaan ñëpp a kontaan tey ci Siteu lii dañ koo xaaran ci moom xaman na ne papa day ñëw tu mu ñëwee da koy remplir nooju ko mu wàcc lii lii këlkin la woon doole ji la bëree yàggal lamb ji Père Max ne woon nga ni Siteu am na doole ne woon nga tey Siteu doole la war a wane ci bés bi Siteu waa xam nga biñ dellu dama ko def de bras bi baax na mais sëkkatal ko pour am avantage dina bëre si boo tee dama gis Papa Sow yàkkamti ma ne ko boo teelee jóg dina la yegg fu neexul mu topp loolu biñ dellu rek ma ne ko sëkkatal ko mais bul jóg Siteu daa mën a bëre te bëreegul fu mu jëm non ci kanam dinaa wax ak yow daaxuma laa jàng. eh fu mu rek ma feetu. mais da ma feetu. <laughs>